partie bi waxtaanee woon nañ lu jëm ci wàllu éducation ak santé ak euh, li nga xam ne jot nga ko fa def léegi nag dañuy ñëw ci peut-être euh, euh, d'une manière globale léegi dañuy ramasser li ñu des ci temps bi ci li nga xam ne mooy sa gestion mais bëggoon naa ñëw quand ci cadre de vie li nga xam ne moom mooy cadre de vie au niveau du département de Mbacké parce que cadre de vie bi ñu bëri dañuy déplorer que Mbacké cadre de vie bi dafa xaw a Euh, c'est un peu dégradant euh, amuñu ay espace vert amuñu euh, ordures yi duñ ko ramasser comme il le faut nit ñi ñooy fay pour jël seen ordure par rapport à tous ces griefs yooyu ñuy soulever parfois ci cadre de vie au niveau de Mbacké ndax mairie bi am na ci un programme spécial wala mairie bi gis nañ tàmbali nga si wàllu cadre de vie peut-être jardin public bi di nga si ñëw certainement mais ci wàllu ramassage des ordures est-ce que am ngeen ci ay euh, lu bees loo xam ne bu ngeen ko andi pour que population yi xaw a ab dëkk boo koy defee il faut nga prioriser am un programme ndax même booy togg sax am na lu war a njëkk ak la ci topp ak la ci topp ba keroog muy sax kon boo yoree lenn da ngay xool ci fi nga xam boo ko defee mën a couvrir ñëpp d'abord pour seen survie d'abord. am yeneen ci toppaat carte de vie nag bokk ci li nga xamante ni dafay participer ci wér-gu-yaramu doomu aadama non seulement ci insalubrité bi dafay jóge mais aussi ci gis-gis bi muy am ci loolu am na lu muy def ci conscience bon bi ñëw ci mairie Mbàkke ñeenti oto mbalit yu paan lañu fekk ndax dinaa la woon PV de passation bi nga gis na quatre véhicules benn en panne lañ ci bind benn doxu hmm. ñu fexe ba réparé woon ñett yi ñett yi réparé woon ñaari mu yàquwaat benn fonction bon ci programme bi ñu doon doxit pour mën a takk suñu biir non seulement pour fay bor yi pour mën a redémarrer ak démarrage boo xamante ni dana permettre au moins les fiscalités locale di mën a financer yenn projets yi moo taxoon boobu ñu mën a réparer rek lañ mën a réparer pour mën a gérer li nga xamante nii mooy li mënta ñàkk mais li ma la wax tout à bu fekkoon ni askan ñu ngi fay tomb mille francs yi ñuy fay privé mu yóbbu leen ko mairie lañ ko war a fay. maanaam ñoom buñ doon fey tomb bi muy taxe sur les ordures ménagères di ngeen leen mën a. borom kër yi bu ñu gën a assurer le le transport des ordures. bu buñ ko fayee dañ ko war a def buñ ko fayee lañ ko war a def mm-hmm. mais buñ ko fayoon. xaalis yooyu dana permettre au moins nga mën a luye beneen camion pour mën a jël mbalit yi di ko tuur mais nag ñàkk xam tax na ñu préféré fay ab privé 2000 ou bien charrette mille alors que loolu service public la mairie ko war a dem feneen fi ci des desit euh, muy état du Sénégal. Mm-hmm. ndax président joxe na ndigal pour ñu respecter ñaari ñaari mbir ñu respecter Kadakar respecter UCG Kadakar mooy gérer mbalitu toute la région de Dakar mais région de Dakar gënul région de Diourbel mu jël UCG pour mu dugg ci biir région yi mais UCG boo xoolee depuis presque des mois ngi nii liggéeyuñu te ni nga xamante ni noonu la état di jëlee mbalitu dakaar noonu la état wala jële mbalitu Mbacké mm-hmm. ak mbalitu Touba kon wëree suta jëlal Dakar en charge seen mbalit bàyyi population yeneen département yi ak seen bopp. kon da ngeen bëgg ñu appuyer commune yi daal. dañu war a appuyer communes yi en en en logistique en logistique et en moyen. pour que ñu mën a transporter les. ñu mën a les ordures. plus que yéen a ngi war a am également ci département bi benn centre de revalorisation des déchets. est-ce que par rapport à ça centre boobu bu ñëwee yéen yéen lan ngeen di soxla pour yéen ngeen mën a acheminer. les ordures ndax centre boobu. bu njëkk non seulement ordures yi hmm. yow danga leen koy jaay hmm. sant dañ koy jënd ci yow tonnage boo indi ñu calculer la ko fay la ko non seulement dana créer ay devises ay rentrées d'argent mais aussi dana créer de l'emploi mais aussi dana régler un problème mais day fekk aussi commune bi am ay moyen yu substantiels yu mën a jële mbali mi looloo tax dans le cadre du PACASEN ñu programmer ci Euh, pour jënd benn pelle mécanique à 45 millions programme aussi jënd benn jënd lu mat juróomi oto ay véhicules de de 7 tonnes yoo xam benn bu ci nekk dina mën a dina mën a jël euh, programme nañ 5 véhicules ay camions de 7 tonnes mu war a ñu coûter à près ay 80 quelques millions 81 million yoo xam dana permettre mu mën dugg ci quartier yi. di jël mbalit mi di ko dajale fenn camion bu mag jël di ko dóor di ko tuur hmm. il faut yi ndaw yi di dugg ci biir kër yi di jël saako yi ak mbalit yi pour mën koo décharger fenn camion yi mag yi acheminé yooyu yëpp c' est des c' est un système boo xamante ni heureusement ba am nañ aussi benn élément bu doon liggéey UCG nga xam ne vraiment il a de l' ci ci liggéey bi hmm. Euh, jël nañ ko vraiment liggéey nañ am nañ seen de travail yu bari bool naa ko le secteur municipal ba liggéey nañ ci ba sore ci mhm. pour que oto yi bu ñëwee ñu am benn procédé yi ñu teg c'est déjà établi pour mën a atteindre la maximum possible des population pour régler seen saafara ci wàllu mbali mais foofu aussi war nañu am tamit ci wàllu communication ak askan bi que borom saret bi nga xam dëkkut commune Mbacké dawal saretam ñëw noor fi ñëw jël mbalit mi bu demee ba romb course bi tuur ko fa mais bul setal sa buntu kër pour tëlimal buntu kër jàmm parce que périphérie bi presque mooy dépotoir d'ordures. boo demee Europe wala États-Unis fu mën a doon nit ñi dañoo am dañ leen a yar ci mbalit yaa ko moom sa mbalit la yow ndax yaa jënd produit yi jël la nga ci bëgg sànni li ci des léegi mhm. li nga bëggul ba sànni ko ba génne ko sa kër. mais bu ko sànni buntu kër jàmbur da ko war a organiser daf ko ci ay sachet civilisé am fi nga koy teg ba pare di fay droit yi nga war a fay pour que ñu mën a teg des structures ñu Europe États-Unis oto mbalit yi moom yi moomuñ ko ay privé la ñu mhm. dañuy contracté ak privé yi ak communes yi bu ko defee droit yi nit ñi di fay ci commune bi automatiquement moom la ñu reversé concessionnaire yooyu ñu jël mbalit yi dem tuuri mhm. mais nag nit ñi war nañu am éducation commencé ko sama bopp que mbalit mi man maa ko maa jënd produit yi ma bëgg jël la ma ci bëgg la ma ci bëggul ma sànni kon bu ma koy sànni naa ko sànni foo xamante ni du gêner keneen mais loolu it bon àggaguñ foofu ci wàllu ci wàllu développement comportement ak développement mais mais est-ce que est-ce que proche Euh, bu weesoo centre de revalorisation nga xam ne sori na leen quand même boo fa bëggee yóbbu des ordures peut-être dina am ay des des frais supplémentaires mm-hmm. yéen foo xam ne mooy seen dépotoir d'ordures boo xam ne di ko wala yéen sax ngeen am seen centre de déjà nous on a un grand projet mm. avec des des chinois et des Amé et des italiens mm. par rapport ak euh, centre boo xamante ni dina mën na récupérer mbalit mi pour transformer mais da dafa doon projet yoo xamante ni souvent. c'est à long terme c'est à long terme ou bien moyen terme. Mm-hmm. ñu ngi ci nag sore nañ ci lool benn bi sax Pape Cheikh Fall maa ngi koy nuyu bu baax vraiment liggéey nañ ci liggéey bu am solo mm-hmm. ndax cabinet euh, Lazareth bi nekk Paris un grand cabinet d'affaires mm-hmm. moom leen présenté ba benn projet ñoom ñoo ko porté donc ñu ngi leen di déglu puisque projet bu diis la. donc il faut ñoom un bailleur donc am nañ des bailleurs mais malheureusement bon bi ñuy dem fekk na ñoom ñu jotoon dem Côte d'Ivoire mais seen cible bokk na ci Dakar ak Touba mënuñ implanté wu Touba parce que Touba est un titre foncier global mhm. kon forcément Mbàkke lañ koy war a def donc am na des postes euh, perspectives yoo xamante ni ci domaine boobu am solo yoo xamante ni incha allah rab ñu koy xaar mhm. ci liggéey bu baax a baax a baax Euh, monsieur le ñu dem ci wàllu euh, foncier. Mm-hmm. Euh, ñuy saluer au passage Moustapha Ba. Mm-hmm. nga xam ne sa conseil la ci wàll boobu. foncier quand même c' problème à Mbacké. bari na ay coow kenn ku nekk yaa ngi wax les gens parlent de scandale le la situation du foncier à Mbacké c' quoi en fait lan la lan lan moo tax. foncier Mbacké am problème nit ñi di coow kenn ku nekk di wax. ndax li ngeen ko bëgg a réaffecté la wala dafa am lu ci leerul wala lan. non foncier Mbacké mhm. ñi ci xamul rek ñoo ciy wax parce que mbir nag soo ci xamul di ci wax chaque jour nga déglu naa sa benn émission ak euh, suñu benn mbokk waaw Youssou mu ciy wax ba tudd le chef de service du cadastre de Diourbel le lendemain je l'ai appelé mhm. ne ko interpellé nañ la ci benn émission ne yaa wax nangam ak nangam mu ne ma ngane ne lan man xawma ma kooku mosuma koo gis bëgg tàng coow mu ne ko. jaru parce que nit mënuloo ne ci dëkk ba saq ko bejaaw te képp koo ko tuddal rek mun la bàyyil ma noonu mu ne kooku loolu la représenté Mbàkke kon jërul wax te mag la li muy wax moom la concerné. Mhm. mais quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi koy déglu kenn gëmu ko ci mais nag man it damay bëgg bis bi amatee occasion conseil municipal mu mhm. invité la nga toog comme ni mu defoon jaañ la de service de l'urbanisme bi defee une erreur dama toog dama ko rectifier sur le champ pour que population yi dégg mhm. da am nañ ñun innovation bu ñu def ci conseil municipal mais bi ñu fi toogee ba léegi quatre-vingt-dix pour cent des réunions de conseil lépp dañ koy direct rajo Mhm. parce que population yi mën a am. les informations voilà. Mhm. ci loolu ñi ciy wax ñu ci bari xamuñ li ñuy wax mhm. mbir nag boo xamul li ngay wax lu ci ëpp ay erreur rek ay tooxi doon lay doon foncier Mbàkke ñun fiñ ko fekk mooy maa ngi wax ci contrôle Moustapha Ba am na certes des lotissements yoo xamante ni amul benn document de baas booy mën a sukkandiku. ne lotissement bi lii mooy autorisation bi commission bi moo daje lii ñun liñ fi fekk ci commission ñaari affectation laa fi gis réunion de commission te lépp ci quartier Santhiane muy Ndoyène extension loolu it plus de 6000 parcelle la wala 5000 et quelques mais ca la ma gis réaffectation bu njëkk ba 1000 et quelques parcelles la ca des. commission joxewu ko leneen li ci des mooy ay lotissement yu baree baree baree bare yoo xamante nii wax dëgg yàlla amul wax dëgg yàlla amul euh, fondement bu dëgër la preuve fii ñuy bëgg def step bi boo demee fépp ay pneu lañ ko sàmm mais bi ñu jëlee décision pour def ko fa def une déclaration à la rajo pendant un mois quinze jours ne képp ku fam terrain na nga ñëw kenn dikkul am na ku ma interpellé ne ma foofu kat jotoon nañ ko lotissé mais am na ñu ñu ko joxoon am na ñu ñu ko joxoon ma leen ñooñ nañ indi seen kayit préfecture kenn ñëwul kenn réagirul benn nit je crois que moo réagir Moustapha te fi mu wax du foofu mhm. leneen li ci des bu nee Mbàkke amatul suuf Mbàkke am na suuf mhm. espace ah, loolu moom presque laaj koo gis mais xamuñu Mm. parce que boo xoolee espace yi nga xamante ni des na fi da nga gis ñu samp koy pneu quatre-vingt-dix pour cent espace yooyu boo demee au niveau du cadastre ay lotissement yu figuré wul dans le système. c'est des lotissements fictifs. c'est c'est mm, bon. pas fictif mais c'est des lotissements yoo xam ne attribué wuñ ko daal laa bëgg a wax. même buñ ko attribué it fondamentaux yi nga xamante mooy tax. mu valable euh, mu valable amut. Mm-hmm. je veux dire que c'est pas par la commune c'est bon même bu ko commune initié ñun boog duñ ko reconnaître impôt domaine reconnaître ko cadastre impôt euh, reconnaître ko euh, impôt domaine reconnaître ak ni urbanisme léegi nag mën nañu wax ne terrain yooyu yu ci ëpp ay nit ñoo ci teg loxo nit ñooñu nag boo xoolee jëm ca ah ku ba aj kay moo gën a bañ kuñ xool ci te loolu it il faut ñu tendre vraiment vers l'équité pour que nit ñi tolloo la ci dëkk bi amal deux terrain garaawul sa yaa ko moom mais enregistré ko mu tege ci yoon mais il faut ñu bàyyi xel jeunesse bi dañoo war a am kër dañoo war a am soxna dañoo war a am njaboot te nii ñu ko paatoon yi samp fii pour ne ku nekk teg dara suñ ko bëggee def noonu ah jeunesse du ñu am kër Mbàkke de. waaw est-ce que yéen am ngeen ay des moyens de de de reprendre en main ce foncier là. Euh, teg ko ci yoon parce que yéen a koy annonce mais dafa mel ni euh, yéen a ngi ko yéen a ngi ko yéen a ngi jànkonteel avec des éléments de blocage yoo xam ne parfois même c'est des c'est des éléments typiquement religieux yoo xam ne du ngeen leen mën a franchir à cause de dëkk bi ni mu bindoog yooyu est-ce que yéen euh, am ngeen possibilité réellement mën a reprendre à main le foncier ba jeunes yooyu ngay wax noonu ak ñi fi amagul kër mën ko fee am. loolu élément loolu du blocage. Hmm. cest moo yeex ndax ñaari service muy CARES urbanisme bi toppatoo Mbàkke mooy toppatoo région bépp te presque nu tous nous avons les mêmes problèmes mais woote nañ benn région boo xamante ni impôt domaine CARES urbanisme euh, le chef le délégué de quartier le chef de service le chef de bureau domanial de la mairie commission domaniale mais invité DESCOS service de ak Mbaw géomètre Thiaw lu fi nekkoon comme chef de service du cadastre de l'urbanisme ak nit ñi nga xamante ñëpp jàpp nañ ne suñu participer ci réunion dañu indi des éléments yoo xamante dina permettre ñu am vraiment information yi day ñëpp ñu toog on s'est réunis on a fait un mm-hmm. léegi le géomètre bi ko natoon ñëw na def relevé yu defee leve ba pare xam na yi nga xam occupé wuñ ko léegi kadas moom moo war a ñëw def beneen leve comparé def son rapport ñu dem nag def deuxième euh, réunion bi pour réaffecter ci loolu it li ñu wax mooy bien vrai que yoon lii la wax mais nañu fexe ba amoon pàkk te tabax ko te amoo këyit ñu defar la kayit. régulariser. deuxièmement ku am pàkk te tabaxoo mais am nga kayit ñëwal ñu yeesal la sa kayit nga fay frais de bordage. Mm-hmm. est-ce que nit ñi ñu ngi jot information boobu. déjà fee rek am na dix kayit yi ñëw naa fa jox le chef de bureau mm-hmm. beneen bi képp ko am kayit amoon fa pàkk te nga xam pàkk mm-hmm. kayit ba réer indil deux témoins ak le délégué de quartier bu boobaa ñu defal la kayit jox la. yi nga xamante ni tabaxuñ wala wuñ koy nit di ko indi seede ak dele te gerte moo ko moom yooyu dañ koy jël commission bi toog ñu joxaat ko doomu Mbàkke yi surtout xale yi nga xamante ni toll nañ ci kër ndax kër goo dugg juróomi borom kër yi ndaw wala juróom benn borom kër yi ndaw ña fa mm-hmm. yoo xamante ni amul est-ce que leen ay litige foncier ak ay coow yu am à l'issue de tout ça mënul am litige parce que li war a def ñun def nañ lee déclaration mm-hmm. ñi nga xamante ni jot nañoo euh, amoon foofu kayit ñi ngi manifesté wu te attention kayit googu dañ la ko jox rek ne la boo ko deful fekk trois ans day jeex sa quarante bi yaa ko moom mais bu bu fekkee ne day jeex par exemple le 10 avril le 10 avril le 11 avril boo ñëwee ci banque présenté mais du ko jël et pourtant yow la mm-hmm. pourquoi nag bu buñ accès fii ñu nangu lii bañ lale ñun ñun amuñu vacation nangu di jox keneen déedéet mais dañ na yi libre. nañ ko te kenn newu fa. Mhm. te effectivement dafa am ñuy libre yu bari. est-ce que ah, xam ngeen aussi ñi nga xam ne dañ fi am ay terrain te kenn xamatulee ñi gaañu nañ ak yooyu est-ce que am ngeen euh, des moyens. ndax terrain yi moom képp kuñ ko jox te dugaloo bàyyi. Hmm. mooy boo toogee trois ans defoo ko yoon dafa war a jël jox ko keneen ku la ko gën a soxla. dinañ comprendre nag ñi nga xam ne amuñu doole. am ay terrain pour seen njaboot gu sew mais it bu fekkente ni am nga terrain am na valeur cinq cent mille un million war ngaa mën a am nag. maanaam boo samp càkkar boo fa samp wala au moins nga lijjanti sa fukki junni damay demee Jurbel dugal sa baay. donc c'est le beneen bi ci des mooy souvent population dañ leen di induire ci erreur te ñi leen di induire ci erreur koo ci woo confrontation mu daw. loolu c'est pas bon bu ñu utiliser politique pour pour pour pour réeral doomu beneen bi ci des may lancer un appel ci doomi Mbàkke yi euh, ñi fi dëkk juddoo fi am teraanga feneen nañu def lu ñu man pour ñëw participer ci développement dëkk beneen bi ci des ñi fi desit nañu am wax ju rafet yu ñuy teg ci deru Mbàkke pour que nit ñi tamit ñeme Mbàkke ba ñoo investir ndax bu fekkente ni saa su nekk ñuy wax wax ju ñaaw di teg ci daru Mbàkke loo xamante ni rafetul day tax nit ñi ragal loolu day tax Mbàkke doom attractivité actuellement bu ngeen gisee nit ñi ñi ngi commencé ñeme ñi ñëw di investir te loolu dafa bokk ci doing business dafa bokk ci li rehausser image yu Mbàkke tey bokk ci lu koy développé mhm. ak luy créer emploi voilà monsieur le maire Serigne Abdou Mbacke Ndaw xam naa duñ mën a wax lépp ci mairie bi euh, peut yeneen émission di dinañ ci ñëwaat mais léegi ñu wax ci wàllu ci wàllu politique yow euh, également euh, yaa ngi yoroon benn mouvement ci nga gagné mairie bi nga ñëw léegi ànd ak président la république gannaaw bi nga amee ñaari victoire am ñoo fi fekk également nga ñëw ànd ak ñoom am defet mu jaaxal ñu bëri. Euh, yow defet boobu bi nga ko amee exactement naka nga ko jàngate ndax euh, ba léegi ñu bëri nee nañ defet boobu mënoo ko digérer daal. waaye ndax mënoo ko comprendre naka naka la qu'est-ce qui s'est réellement si comprendre naa ci lu bari. Hmm. dafa toll àddina ñun nous avons une formation de stratégie donc nous avons une spécialité en stratégie. Hmm. ba lépp lu mën a xew. waroo am une réponse spontanée. da war a toog analyser ko froidement jël le temps jël tous les éléments dugal ko en laboratoire pour xool lan la lay jox comme résultat ndax doo mën a concevoir bu fekkee nit ku ku xalaat nii la rek en 2014 nga am 4000. voix 4000 et quelques voix dem référendum am 9000 mille quelques voix ñëwaat. législative am huit mille et euh, sept mille et quelques voix ba pare ànd ak parti au pouvoir aussi ñu la ah. donc loolu xel mënu ko nangu mm-hmm. te it même ñi nga xamante ni sax ñoom lañ doon jàkkaarloo ñoom yaakaaruñu woon victoire boobu mm-hmm. mais ça c'est aussi simple mm-hmm. mooy ay waa APR ñoo yàqal APR ci élection yi maanaam yow vote sanction nga ko jàppe daal parce que Euh, bi nga xamante yàlla dogal na président bi investir ma mm-hmm. ci Mbàkke ñu bari neexu leen ci biir APR mm-hmm. euh, wax nañu dégg naa mm-hmm. jëf nañ gis naa xam naa te le président de la république mooy nit ki ëpp information ci Sénégal mais ñu nit am nañu ay information yu baree baree baree bare ci nit ñi nga xamante ni yëkkati nañ xaalis jox leader politique bu ne ci dëkk bi bokkoon PDS xam nañ somme bi xam nañ kenn la ko jox pan la jaar. ah ci ci biir APR la ne ki ko def. effectivement beneen bi ci des xam nañu beneen leader politique bu nekk Touba bu yëkkati xaalis jox ko ay leaders yi Touba parce que tout simplement wax nañu ne ndax président de la république li li nga xamante moom la sëñ Bass Abdou Khadre wax. Mm-hmm. mooy président ne yaa koy jiite list département bi dana génne les moyens conséquents nga jóg dem waxtaan ak nit ñi dana wax aussi ñi nga xamante ñoon bokk ci parti bi ñoom ñu jóg jaar ci weneen yoon ñu dawal quelque temps un un de ses lieutenants qui le un des lieutenants du président bi mu yëgee affaire bi ne pourquoi loolu ñu koy sos te moom yëgu ko mm-hmm. bu nekk ci département bi mu nekk ci département hmm. wax ci lu ko neex woo ma téléphone wax ba pare ma coupé ko raccroché ko fay sama téléphone hmm. ba ne élection yi jeexee waxaatuma ak hmm. su ma wooyee je ne parce que tout simplement dafa wax ne fii lu ñu fiy sos moo ko war a jiite moo ko war a wax te kàddoom mu tànn liste bi daal bi ma woo ne ma proposé naa dugal naa la ci ba mu paree dama koo raccroché ndànk fay sama téléphone tontu ma. nga xam ne dugalu la yow. xamu ci dara. Mm-hmm. mais nag yàq na yàq na ci deux niveaux. Mm. benn bi yàq na ba président te de liste départementale mu dindi ko. Mm-hmm. yàq na aussi parce que ñoom ñu perte autant de fois Mbacké premier tour présidentiel da ko perte dañ ko perte Touba. Mm-hmm. teewul président dem deuxième tour deuxième tour présidentiel ñu perte Touba. Hmm. élection législative. ñu perte biir Touba ñu perte biir Touba. gañ département bi. gañu département bi. référendum référendum ñu ñëw perte Touba. Hmm. kon bu keneen ñëwee gañe département bi pour ñoom dee nañ politique c'est hmm. c'est pas aussi compliqué exactement ça beneen bi ci des. am naa ay nit yoo xam mën naa la limal ay niti nit yoo xamante ni kenn ku ci nekk yor nga euh, photo euh, bu coalition bu PDS ak 2000 francs te bokk ci affaire di ko jox ay militants ba pare luye kaar ñu leen koy jox ñu ñëw voté hmm? mën naa cee wax ci télévision lay wax hmm. ndax bi mu amee ba léegi c'est la première fois mu wax ci élection yi hmm. rapport bi ñu defee élection yi ba mu jàll ba ci Abdou Mbacké Gaynde Fatma ak ñoom ñëpp dañoo daw seen responsabilité parce que bi élection yi jàllee bi ñu war a demander recours ñëpp a bañ même sëñ Abdou Gaynde ma bi ko maître Babou wooyee pour mu dem pour ñu def recours bi ci turam dafa bañ il a refusé. <laughs> man yow yaa ko mujj def. man maa porté recours boobu maa jëli tout. les éléments au niveau de la préfecture maa defar schéma bi ma ngi maître Babou maître Abdoulaye Babou man ak moom ñoo toog ñaari fan liggéey sa rapport sa document mi sama machine boo laajee maître Babou dañ la wax de quoi je suis capable liggéey nañ ci ñaari fan ba rapport bi par ñu déposé mais nag ak la cay xew mais bu fekkoon nañu topp droit ça allait passer parce que tous les éléments qui fonk que ce ce ce, ce recours là soit accepté. mi ngi woon réuni mm-hmm. bi laaju ko woon beneen bi ci des it loolu it ñun bi ñu koy def dañu doon def parce que dañu war def li ñu yoon may mm-hmm. mais bi ñu perte élection yi rek automatiquement dañ cee sant yàlla xam ne ñi nga xamante ñoom la yàlla jox victoire bi. ay doomi Mbàkke lañ suñuy bokk lañ mm-hmm. yàgg nañ mm-hmm. ndax boo xoolee rek bon muy Fatma Diop muy njabootu Baara Doli voilà ñoom ñëpp suñu ay mbokk lañ donc ñu xam ne noonu la mën a doxee mm-hmm. dem nga wuti am wuti waat am ñu doon ñàkk gënoo leen mais jànge nañ ci loo xamante nii donc bis bu wax nag affrontement jotee il faut que ñu wax parce que tamit bu ñu naxante président su bëggee gagner les élections il faut que yëf yi leer ñu teg une programmation claire ni jël seen ay responsabilités ñu situer les responsabilités. Mm-hmm. mais parce que ba léegi kenn deful bilan. kenn élection yooyu xamuñu qui est qui a fait quoi qui est responsable. le président est mieux renseigné que quiconque moom xam na li xew. Mm. xam na li xew na jël ses responsabilités parce que dafa bëgg a gagner. voilà mais ci loolu euh, quand même euh, am na ñoo bokkal parti bi gis nga ñoom wax nga junj nga xëy na junj doy na borom xel ñoom ñoo euh, yàq ba gañewu leen. am na benn réunion. Hmm? suñu Abdou Mbacké Gaynde Fatma maa ngi toog. Hmm. Omar maa ngi toog. Gallo mi ngi toog. madame Mbaye mi ngi toog ak leader yu bëri hmm. mais am na un un responsable dafa wax ne. am na ñoo xamante ni benn bokk yaakaar lañ bokk APR lañ bokk mais man la ñuy àndal nee nañ duñu voté liste parce que man diw nekkuma ci liste publiquement kooku la deuxièmement waxaat ne euh, man am na ñeneen nit ñoo xamante ni APR lañ bokk bokk ci benn bokk yaakaar mais man la àndal nee na duñu voté yi parce que Abdou mii moo ci nekk. kooku kan publiquement Gallo <laughs> notre moom moo wax loolu. publiquement ci biir ci biir réunion publiquement ci biir réunion bi. kon yow en conclusion jàpp nga ne moom. kon bokk na ci ñu def pour sanction bi choqué et déçu. Mhm. pourquoi mhm. parce que ña ma bokkaloon saal ba ñëpp ci laa gis seen irresponsabilité. kenn réagirul kenn réagirul ci laa gis seen irresponsabilité. parce que politique aussi dafa laaj une certaine responsabilité. Mhm. askan wi aussi man dama jàpp ne doonuñu ay ay objet wala ay gadget wala ñoo xam ne dañ leen di ñëw rek gurgur leen ñëw expliquer texte yi théorie boobu leen yóbbu on a assez souffert on a accusé beaucoup de retard mm-hmm. cette commune là pour ñu defar ko il faut que ñu fay defar toog ci dëkk yi mu jël un engagement mm-hmm. nangoo perte lu bëri politique defarul Mbacké mm-hmm. Mbacké détermination moo koy defar mais mais mais mais monsieur le maire ci loolu yéen a ngi jëm quand même élection présidentielle euh, boo xam ne président bi moom moo soxla mais dégg nañ déjà ñu bëri ñoo xam ne instant bi fi ne nii ñoom ñi ngi déclaré ñii ñi ngi déclaré seen candidature pour la mairie am na sax ñuy déclaré ay candidature ay mairie de Dakar est-ce que yow jàpp nga ne responsable département bi euh, euh, falaat président ñor na leen dëkk dëkk dëkk dëkk. xam nga man dama ci télé laay wax. Hmm. te it li may wax nëbbu ma Mhm. mais man duma politicien mhm. moo tax man mënuma fenn te du ma naxaat mhm. mais président ñii di coow ñëpp dañ koy nax fii fii kenn ku ci nekk sa bopp nga tal te yaa ngi lijjanti sa bopp war na def attention parce que gars yi lii tax ñu mu gañe mais législative yoo koy wane defuñu benn liggéey benn jour lañ gën def seen caravane sol seen yére yi rafet war dëkk bi ñëw gaar seen oto jeex na jour vote bi incohérence yi am sax ci yenn bureau yi bi ma wooyee euh, monsieur Nangam pour lui faire savoir que am na incohérence dana man maa ngi yónni booy ñu xool mhm. le jour le jour du du vote maa gis ay 17 heures mu ànd ak ñeenti booy dugub otom dem nga xool ne président la république mhm. élection présidence yi ñu jëm du yomb mhm. mais nag il a beaucoup concurrentiel par rapport a ses adversaires à ses adversaires hmm. yow jàpp nga ne eh, waxoon nga ko temps yi la ne mën na franchir étape bi mais pour mu franchir ko également am na lu mu war a def surtout que yéen au niveau départemental am nay engagement yu mu jëloon ak yéen mais engagement yooyu aussi malheureusement gis nañ ne euh, xam naa mission baa ngi waaj jeex gis nañ ne engagement yooyu quand même réalisé guñ leen ba léegi stade Mbacké bi euh, euh, nu mu tuuti andi woon nañ aussi dans le cadre du comment dire encore Promoville luñ la waroon a defal ci wàllu éclairage ci wàllu ay route ak yooyu mais yooyu fan la toll exactement. instant bii ma wax yow l' du Sénégal ci ndigalu président de la république. Mhm. dugal nañu éclairage bu bëri ci département de Mbacké. Mhm. Mbacké ci projet indien boobu am nañ ci presque vingt cinq kilomètres. Mhm. lu ci ëpp ñu ngi ko dugal ci Ndoyeen extension ak Ndiayeen ak une bonne de Palais. am na beneen programme bu ñu tegaat dès demain midi mm-hmm. dinaa dem une une partie bi defoon ci Mbacke xewar ñu jéem ko dugal mm-hmm. te am na benn requête bu ma def pour jàmm gën ak Mbacke baar yi ak Mbacke dimb ak paaleen pour que ñu mën leen a éclairer une bonne fois pour toutes mm-hmm. li jëm ci côté éclairage bi jox nañu 500 lampadaires ba ANER notifié nañu ko yu moderne yu moderne joxe nañu xaajate kan Tafa Fall comme point focal. Mm-hmm. li jëm ci wàll infrastructure yi. Mm-hmm. bokkoon na ci ndox. Mm-hmm. ndox mi bien avant forage bi panne depuis trois ans ci dox ba ministre euh, Mansour Faye ñu ngi koy vraiment sant ci jàppaleem ndax c'était pas évident boole ñoo Charles Fall le directeur général de la SONES ñoom ay séances de travail yu bari ba tout récemment rek lañ ma woo ne ma ah affaire bi mujj na sotti dañ def Mbàkke deux forage benn dañ ko def benn après màggal ñu def beneen bon bi waxtaan wi sore it wax dëgg yàlla ñu defaat beneen plaidoyer ndax duñ taayal après au finish ñu ne léegi segam société bi day ñëw na fi toog defar ñaari forage ñu connecté ko benn yoon moo tax keroog bi nga may laaj xam naa ne ñoom ñu ngi ci yoon yi bi nga may posé question mhm. départ nañ Dakar ak seeguñu mhm. mais na installé nañ démb à 10 heures lañ commencé ba bi ma fay mujj bii rek ñu ngi ci 34 mètres actuellement bi ma laajee ñu ngi ci 62 mètres. Mhm. bon ndax am ngeen ci yaakaar fii ak màggal wala. non dañ day bii maximum un mois lay mat. Mhm. beneen bi njaayeen lañ koy def maximum un mois ñu connecté ko. ñu ñu population ñu bëri ñu ngi laaj ndax ndox mu neex lay doon wala toujours même ndox mi lay. nekk xam nga nappe maestriche bassin bi loolu mooy suñu chance. Mhm. l'eau est chômante. mooy li dal Diourbel. mooy li dal Kaolack. mooy li dal Fatick mooy li dal Mbacké mooy li dal euh, Daara Moxti mhm. mooy dal Touba donc bassin arachidier bi moom ba Louga mhm. boo xoolee ndox mi am noonu la mhm. bon ndox mi na napp yi ñuy daj nag maanaam bu neex mais du mën a dundal sax ab quartier ah, moo tax il nous faut vraiment assez d'eau moo tax il faut ñu dem ci napp maestrise bi te dana mat 300 mètres minimum déjà kon ñii 300 mètres la ñu war a gas pour mën a préforage bi pour ñu mën ko utiliser pour mbaj mhm. benn bi fii lañ koy def ci château bi benn bi Ndiayène mhm. le stade municipal mhm. euh, jeudi <clears throat> toog naa ak Malick Gaye mu jox ma toutes les garanties ni ma cette fois-ci c'est la bonne on a reçu des injonctions pour que ñu mën a defar affaire bi nu mu gën a gaawee d'ailleurs le ministre des finances moom ma ko wax de je reprends ces mots du Ba Amadou Ba. nee na dina libérer budget bi. Mhm. incessamment. ci biir mois bi. Mhm. su ko libérer automatiquement on va démarrer les travaux d'ailleurs a lancé euh, le marché. Mhm. benn société nangam moo ko su suñ société bu am doole moo gagné stade bi dana ñëw lancé ko rapidement moom mu liggéey ko ñu jëbal la ko. beneen bi ci des. ci li président dige woon bokk na ci université boobu te wut na financement ci coopération allemande à de set milliards beneen bi ci président digle woon bokk na ci Promoville mais Promoville nag dans sa généralité dañoo am problème. waaw waaw dëkk yëpp même Diourbel dañu arrêté. voilà te loolu it bon problème mu partenaire nag partenaire financier des fois ñu sang projet yoon dañu dem ba ci biir ñu am xaalis. ñu taxaw ñu taxaw mhm. beneen bi ci des. bokkoon na ci franco arabe il faut nga dem visiter ko franco arabe bu moderne ci ginnaaw SEDAC bi. Hmm, tàmbali nañ ko. léegi mu pare hmm. daanaka raax moo ci des ak xadd ko mu pare ak daara moderne bi nga xam ne yaañ ka hmm. fi ñu toll ñoom it. daanaka dans le cadre euh, du projet de modernisation. de daara donc voilà donc ñoom it presque pare na raax ak finition moo ci des bi ci des it ci li ñu président digoon mooy assainissement. am na un projet de de de treize milliards cinq cent euh, Touba nag lañ ko waroon a def mais ñu mujj dans le cadre de l' intercommunalité boole Touba ak Mbacké def step bi à Mbacké station de pompage à Touba. bu ko defee léegi ñaari dëkk yi bokk ko. ngeen am ci ñaata. ñun am bon. am nañ ci un milliard am nañ cinq kilomètres. Euh, cinq dañu am cinq kilomètres ak trois cent ak six cent branchements. léegi nag ci loolu tamit bokkut ak. aussi PACASEN bi nga xamante ni on a été un très mauvais élève hmm. en de gestion. mooy gestion antérieure bi antérieure bi mais ñuy féliciter bu baax euh, le préfet Makan Mbeng hmm. parce que bi problème bi amee dama dem seeti ko. Hmm. ne ko ama ah, qualité de maire du ma seetaan xaalis bi toll ni dugg Sénégal te Mbàkke du ci am. du ñu disqualifié ci coow kese. il a organisé une rencontre avec l'ADM ñu defa leen proposition pour que ñu mën a fay bor boobu bon ñu dajeeg le payeur waxtaan ak moom ñu jël engagement ne pour que chaque année na leen verse vingt huit millions de francs fa pour au moins deux d'ici deux ans trois ans quatre ans bor bi mat hmm. donc fay nañ deux fois hmm. ba c'est en très bonne voie moo tax ñu repêché ñu dugal ñu mais bi ñu repêché aussi Euh, wax dëgg yàlla somme bi ñu am à part Touba ak quelques grandes communes euh, mën nañ ne bu ñu juróomi collectivité ëppale it ñun ñooy juróom-beneen waa monsieur le maire xam naa ne émission bi euh, day jeex peut-être ma ma rapidement en en quelques lii lépp bi nga ko bi nga ko globaliser yow jàpp nga ne am nga un bilan boo mën a présenter mais également fas na nga accompagner le président de la République pour 2019 effectivement boo xoolee ci cadre bi ngay wax tamit euh, ci cadre de vie mhm. bon am na projet ba tudduma ko ci ah, Pakasen bi ah. initié nañ lu ma quatre places publiques yow bu ci ne dem ay wifi mhm. ci quatre quartiers dem Mbacké pour accompagner jeunesse bi mhm. vraiment pour ñoom bàyyi kër yi ñuy toog di connecté voilà ñoom voilà <laughs> on on tend vers Mbacké ville intelligente ah. bi ci des it mooy réaffectation yi ñu war a yóbbu artisans yi bon commencé nañ ko donc procédure bi yeex na mais que sore nañ ci lool même ak Dame Diop 3 FTP donc liggéey nañ ci ak le ministre de l'artisanat pour que léegi incha allah rabbi ñu mën leen a réaffecter le plus rapidement ci loolu nag bu ñu waxantee dëgg mooy fi ñu jëlee Mbàkke ak fi ñu ko indi mën naa yëkkati sama loxo amul aucune commune au Sénégal boo am lii ñu réaliser avec ces difficultés réalisées moi je connais le Sénégal j'ai fait 43 départements parmi les 45 départements beaucoup de maires actuellement au Sénégal maa leen di jàppale parce que pour seen ay élections yi parce que ñoom ko ci am ambulance am corbillard organiser quelques ay ordinateurs pour école yi yow ak say manifestation jàpp nga ne réussir nga sa mission c'est pas ça pour moi pour moi dañu fal pour ñu transformer Mbacké mais nag lu yàqu plus de cinquante huit ans mënoo koo defar ci cinq li nga man mooy teg les fondamentaux liggéey ak ñi nga xamante ñooy waa dëkk bi ñu tendre vers l'idéal président la république nag wax dëgg yàlla euh, ñun dañ lañ ko jàppale danañ ko jàppale sans raison li ma ko waxoon mi ngi toog Mamadou Makhtar Cissé mi ngi toog hmm. ñu toog pendant deux heures quinze minutes ma ne ko président man euh, pour ma jàppale la laajuma la poste de responsabilité laajuma la xaalis te duma la ko mas a laaj mais li ma lay laaj mooy waa Mbàkke dañ ma fal ngi dañ ma yaakaar lenn li mairie ko man lenn li état ko man lenn li partenaire moo ko man li mairie man dinaa ci def li ma man ak lu ma mënut mais li état man nag lañ bëgg nga jàpp ci. ñu jàppale la yow boo jàppalee Mbàkke comme ni nga xamante réew yëpp loolu la ñu am ñu ñuy jàppale sans condition loolu tax man lu ma man ak lu ma mënut maa ngi koy def pour que mu am ndam loolu nag il a fait beaucoup de réalisations dans le Sénégal mais la communication bi tax nit ñi approprier ko ba xam loolu moo des loolu nag tout un chacun ku ci nekk am nga ci part de responsabilité pour que loolu mën a fees askan wi xam ko. buñ ko mm-hmm. xamee suñ ko àndee ak moom baax na. yow yow yi nan nga ci fas yéene demee ndax ñi la yàqaloon ba nekkoo député da ngay àndaat ak ñoom euh, liggéey wala yow da ngay ber saaw bopp. liggéey président dafa am ñaari am importance yu bëggoon tamit benn bi mooy pour nga nekk jiit. Mm-hmm. njiit da nangoo jëlale di nangoo jéggale. Mm-hmm. man lu def rek. baal nga ko baal naa ko ngir jëm yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba. te lu ma def nit it na ma jéggal ndax li ma wax nii jëloon dama ne woon du ma ci waxaat mhm. mais segam yàgg na mhm. te fi mu nekk mu ngi fay bëgg a yàgg naa ko libéré benn yoon mhm. beneen ba ci des yàlla daf ñuy boole Cheikh Amadou Bamba te bu ñëwutoon ci àddina duñ fi ñëw ndax sëñ Abdoulahi di ñëw soxna may du dikk te liñ ko def ci lu ñaaw ci àddina commencé ci Mbàkke Bawol ba ba ci tubaab yi ba ni mu delsi te ñëpp la baal te ña ko gënoon sonal sax ñoom la gën a teral kon man man amuluma kenn lu ma koy teel ku mënti doon loo ma def baal naa la parce que la nga def yàllaa ko dogal jaarle ko ci yow donc kon nag yal nañu yàlla dimbale. <laughs> jërëjëf jàppale ñu donc maa ngi leen di sant. waaw ñu bàyyi nga. di leen gërëm tàggoo mbokk auditeurs yi waaw fi may tàggoo nag mooy lu am solo. Hmm. ndax damaa dem Dakar représenté commune de Mbacké mais aussi gisuma le maire Abdoulaat Ka ñëw dafa yónnee mais ma taxawaale aussi commune Touba ci loolu ñu wax ne dañuy créer pôle Dakar pôle Thiès pôle Casamance pôle Nord pôle Sine Saloum pôle centre bu nga jël pôle centre jël Touba boole ko Mbacké dëxañ ko ci Diourbel ak Louga yàlla dogal maay dernier intervenant mais dama sant ñëpp ba pare neen ànduma ci li tax ànduma ci mooy Touba million millions d'habitants la ëpp na kon suñ naan deuxième grande ville en terme d'habitation en terme de euh, de population parce que dañoo juum ndax bu ñuy comparer Touba Dakar lañ koy comparer mais pas département de Dakar mais région de Dakar kon département de Dakar Touba ko ëpp. kon buñ koy comparé nañ ko comparé ak département de Dakar te département de Dakar Touba ko benn bu ñu en terme de richesse ñu ne mooy deuxième ville économique mais ville ak ville la ñuy comparé mais dañuy bëgg comparé ville de Touba ak région de Dakar mais suñu demee département de Dakar ak ville de Touba Touba ëpp xaalis moo ëpp actif circulant beneen bi ci des Touba en 96 mooy unique commune au monde unique ville au monde bu ñu retenir comme ville modèle universelle ba léegi defaatuñ li ko war parce que Cheikh Abdoul Ahad yal ko yàlla fay moo recensé moo lotissé quatre-vingt-cinq mille parcelles viabilisé ko joxe ko loolu mos am dans l'histoire du monde te du amati loolu taxoon na Touba am avantage concurrentiel boobu bañ tànnoon ko loolu c' est un avantage pour le Sénégal dañ ko war jël en compte beneen bi ci des Touba mooy unique ville au monde buy recevoir cinq millions de personnes pendant trois jours te kenn du fay logement kenn du fay lekk kenn du fay naan te amul agression amul xulo amul buuxante loolu avantage concurrentiel la pour Sénégal pour ñu approprier ko l'université de Bambey le département économique wax na l' actif circulant du Magal de Touba s'estime à deux cent quatre-vingt-cinq milliards même la coopération chinoise boo xoolee gañewuñ lu ñu toll au Sénégal beneen bi ci des ñu bëgg a ñaari quartier Touba mu ëpp population commune de Diourbel ñaari quartier Touba mu ëpp population commune de Louga nga jël commune région nga jël région de Diourbel région de Louga boole leen génn Touba ak population Touba ak moo leen ëpp beneen bi ci des la position centrale de Touba bi ci des nag la capacité de mobilisation d'influence de sympathie de Touba loolu war naa tax mu nekk un pôle Touba Mbacké ñu promouvoir beneen bi ci des tous les pôles ñuy promouvoir la ñuy la séntu ci ñoom mooy la production de biens et de services suñ paree lu ëpp 60 pour cent Touba ko jëm moo tax ma leen man ñun ñun d'accord ñu man lankal naa Mbàkke lankaaleel waa Touba ndax falaa bokk <laughs> loolu it bind nañu président de la république mhm. dana dem bind nañ xalif général des Mourides waxtaan nañ ci le porte-parole waxtaan nañ ci le maire de pour que vraiment kon ñu dem vers le pôle Touba Mbacké merci beaucoup merci beaucoup euh, ñu koy ñu koy sant bu baax euh, Serigne Abdou Mbacké Ndaw di maire de la commune de Mbacké sant également ñi nga xam ne ñoom la ñu fekk fii ci kër maire bi parce que émission enregistrée la surtout pour la rajo ñu ñëwoon fii euh, fekk leen fii ay ñoom Moustapha Ba ak euh, Moustapha Ndiaye ak euh, ñoom Khadim Thiello ak waa kër gi yëpp ak ñoom Diakho ñuy sant bu baax ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon suivre ci émission bi ñu jàpp ne xëy na benn yoon dañ dellusiwaat ci beneen émission Euh, ci yeneen euh, sujet yoo xam ne dafay intéressé Mbàkke yi salaamaaleykum wa rahmatullah